di kontaan ci seen ñëw fii woote bi ñu woote fii ak wëysa bi ñu wëysa fii di am nañ ci kontaan ndax woote bi woote mbokk la woote bennoo la woote defar suñu gox ndax yàlla dafa ne woon yaa daawud inna jaalnaa kalifatan fi l ardi fahkum bayna naas bil haq léegi daawud yow la ñu dénk àddina biñ ko yónnee yow la te nag nanga atti nit ñi ci dëgg kon nag eh, li ma wax fii léegi mooy gox bu ne ña fa nekk lu fa jag ñoomoo lu fa jag di ñoom la ndax yàlla dafa ne lépp lu ma def ci kaw suuf pour yéen la waaye yéen pour pour pour man la kon nag ñun bu ñu fekkee ne dem nañu ba léegi yëg ni war nañu ànd defar suñu diggante loolu alhamdulillahi rabbil alamina loolu kontante la léegi nag li wax naa ko fii léegi ba ñuy dalee dugg ci politique yàgg na parce que man bu ma bu ma yeboo rek ba ma xamee affaire politique ba léegi at bu ne politiciens yi daan ñëw fii dégg ñu lu ne lu lee daan ci ko fa fii wax be mu neex waaye nag jëf ba mu def ne leen xam ngeen léegi nag bu yàlla defee léegi ñu boole suñu bopp nag yéeg ne war nañu mun a ànd defar suñu gox loolu sant yàlla la loolu waa àll bi li doon kaar may ma jaaga wax xale yi ku leen juróon yërëm leen yërëm leen waaye yéen àll bi ku leen xamoon yërëm leen ndax am na ñoo xam ne ba léegi bu ñu amee ndox dañoo takk ay saret te loolu war na jég ci réew mi am na ñoo xam ne courant bi dem na ba jege leen te jaadu nañu am ay courant ba léegi ñu ngi leen di minimiser mel ne bokkuñ ci réew mi te loolu jaaduwul am na ñoo xam ne ba léegi bu ñu demee ba léegi fekkee ne léegi ndox ah dem mel na léegi dafa dem ba léegi réew mi kenn waratul yéeg ndox loolu bu ñu demee xam ne léegi am na ñoo xam dañoo souffrir ci wàllu ndox loolu xam nga ne loolu dem jëmur kër te loolu nag lu mun a am la am na loo xam ne ñun li ñu laaj mooy lu mun a nekk laajuñ lu mënta nekk am na ñoo xam ne jaaduñu am courant war nañu am ndox war nañu am ay jiw bu doy war nañ leen di toppatoo ci loo xam ne lépp loo xam ne nit ki da ko laaj ci wàllu dundam loolu dañ cee bokk ci réew mi ndax toujours dama koy wax ne ki nekk États-Unis Amérique la may kalaat be def ko ñun ñii nee ci àll bi buñ ci amoo rek def ko ñàkk mooy rek ak minimi siñu mel ne bokku ci réew mi def ñu ay cousement ñàppal loolu nag dafa war a jeex dafa war a jeex ci réew mi waaw dafa war a war a jeex ñi xam ne léegi bu fekkente ne léegi dem nañ ba ñaam nga xam ne dañuy wut ay mairie sax bu ñu demee ba am ay mairie bu ñu toogee bu ñu boo ñëwee nga wax leen sa farat dañ mi minimiser di la wax ne loolu amuñu ko mënuñu ko wala nguur nguur ko moo ko war a def te wallahi azim loolu am na ci loo xam ne na nañ ko def te doon pas service service bi Thierno man mii Thierno maa ko wax maa ko wax maa ko wax te ñuy minimiser kon nag al kon nag bu la defee léegi ñu ànd boole suñu bopp yéeg ne war nañu ànd defar suñu gox xeex suñuy droit ndekk koo xam ne boo demee sa tool ya boo liggéey ba sonn boo ñëwee war nga laaj sa añ waaye nag nga dem tool wàcc nga ne añ na déedéet doo fi añ loolu dafa war a jeex loolu dafa war a jeex ci nii wala ci naa nañu gëm suñu bopp nañ gëm suñ bopp loolu bul kenn yox-yox yi li ma bëgg nag mooy li ñu li tax ñu indi fii tey nañ ko gëm nañ ko gëm ñu bañ ko minimiser jóge fii rek daal di tax sóoroo loolu baaxut bu fekkee ne ay gor ànd nañu ba am lu ñu sos am lu ñu sos nañ gëm suñu bopp su ko defee parce que nguur xamut xamut ko ko bëgg de nguuram dong la xam nguuram dëng la kam kon nag na ci ànd ñun tam ñu gëm suñu bopp nga xam ne suñu gox lañu am ku ñu nekkal ñu nekkal la ñu nekkal ñu takk fali waa acur daa wana am na duñu yàlla jagleel suñuy taraanga ñu yàlla mu ngi ñu koy jox bu dee ceebu Macky Sall boobu duñu reer duñu añ bu dee booba na ko lekk dégg nga gis nga Ousseynou Diaw li mu formé lii fii pël yeeg olof yeeg naar yëpp jox nañ na loxo nanu àndal liggéey nanu àndal liggéey gox bi nax yi dafa war a jeex bés bu set bés bu set danaa la defal danaa la defal defal lu dul dara leer la ñu def bu nawet jote nga daggi béy ba bu bu nawet jeexee nga de wéeru fële loolu la ñu def leer la def nii ngay gis fii fii bu xam naa yéen xamu leen gox bi fii pël gu fi am am courant amul pël yi moom bokkuñ fii moom pël bokku pël bokku te gis nga li gis nii bu nu demoon ba élection yi walaay dana leer dana leer Ousseynou Diaw ah jox jox nañ la loxo nam tàkkoo ànd liggéey pël yeeg naar yeeg olof yëpp jox nañ la loxo nam ànd liggéey gox bi xaaral ma wax ci sama mbokki alfulaar yi nag ma wax leen jiwoon ni Ousseynou to ci jungo to te ɗum jungo ligo ɗon mairie Darou Mouhty ngalaa ɗon dara mairie Darou Mouhty aruñu fa dara ñun poli aruñu dara dara zéro zéro zéro pen loolu dafa war a jóg dañ ñoo nooteel gis nga kanilaay kanilaay lañ ñu def kanilaay képp Yaya Jammeh nam doon def nit ñi noonu lañ ñu def ñun noonu lañ ñu def depuis ba juddoo ba léegi sunu waajur yi ak sunu soxna yi fi nekk képp ku si mucc dañuy takk saret yóbbu la te loolu mën naa ñàkk courant beeg tëli bi fi nekk lépp bu dul woon ak sëñ Sidi Moukhtar duñ ko am kon kooku dañ koy sant sëñ Sidi Moukhtar amul benn politicien bu ñemee taxaw fii ne li fi nekk ñun man maa ko fi indi amul te depuis Senghor ba léegi suñuy baay ñi ngi watee suñuy yaay ñi ngi watee ñun ñi di bañ ñu dóobalee ñi ngi watee amul lenn lu ma mas ñoo defal kon nag loolu dafa war jeex kon sëñ Ousseyn jaw say mbokk say xarit ñëpp ñi ngi sa ginnaaw tund ñëpp lépp fo fépp foo joxoñ rek ña nga foofa waaw xàccandoo doon te mbooloo mooy doole waaw. ñun nag comme ni ko Xaadim waxee rek ñun moom gisuñu ci benn président gisuñu ci suñ bopp amul benn président boo xamante ne bii gis nañ ci suñ bopp fii li fi nekk yàlla Cheikh Sidi Moukhtar moo ko fi def. kon ñi ngi sant Cheikh Sidi Moukhtar di ñaan yàlla suñ borom yokk ay leeram ñu ngi koy ñaanal ñun nag képp koo xamante ne bii yaa ngi fi wala yaa ngi déglu suñ kàddu. ñun jigéen ñi képp koo xam ne yaa ñuy jàppale nga jàppale ñu ci kaw dimbali ñu ci ay procès moom ñu ko doyal nañ sëkk procès bu ñu kenn dox procès doyal nañ ko nan ñu dimbali defal ñu ñu jàng jàng ay tailleur a ngi fii nan ñu dimbali ñu defal ñu ay formation ñu jàng liggéey saabu wala ordre di jégalu bu baax nañu jàppale ci poste de santé poste de santé nañu ci jàppale wax dëgg yàlla yittewoo nañ ko trop bala nga fee jóge di dem di faju ji dangaa dem ba daaru musi jigéen ñi dañ fiy jóge di mucc di ñuy dugal ci ay sareet fu ne la ñuy dugal di ñu yóbbu daar musi nañ ñu jàppale te yàlla tax ndax ñun jigéen ñi sonn nañ trop sonn nañ ba ca kanam yàlla nañ ñu jàppale ci procédures yi waaw ndax ñun tamit ci jigéen ñi nga xamante ne bi dañ leen a war a jàppale ci lañ bokk ndax nekkul ne dañoo nekk ci àll bi rek duñ bokk ci suñ jógee fii dem Daaru Muxti luñ fay doxi dañuy dox ba suñ tànk yi futtu te duñ fa jëlee dara waaw la ñu gën a sonnal nag mooy bala ñoo faju dañuy dox ba sonn boo soxlaa boo demee commitra kenn du la faale loolu métti nañu trop beneen ba ci mooy su fekkoon tini yegguñu nu nax boo fi ñëwee doo am fa nga jaarale sa oto mais dañuy dig duñ gis dara loolu moo ne metti ba tax na boo wootee kenn dootul wuy ji loolu kese la sinon waaxu ñun ñëpp dañuy ñëw bañ ñu wuy ji kenn nag ñun daal li ñu bëgg mooy ku nu jàppale li nu manqué dafa bëri li nu manqué dafa bëri mooy fajukaay yi muy benn ñaar muy ndox ñett muy dund ñeent mooy heure bi baykat bu nekk soxla na semence nañu indil semence yu baax ñu dugal ko ci tool yi ay liggéeykat ñoo fi nekk mais mënuñu liggéey ndax gisuñu lu ñu liggéey amuñu moyen càmm gi mi ngi fi élevage bi loolu la gars yi capable loolu lañ gën a man mais amuñu moyen nañ ñu dimbale ci moyen gars yi fi nekk yëpp sàmm lañ gën a xam ak bay moo yor réew mi président ba nekk fële ñun ñiy bay di sàmm ñoo ko yor bu dee añ yàpp lay añi élevage bi moo reen di jox ko mu mën a lekk yëpp ah ministre bi ñun ñoo koy dundal bala moo lekk ceebu jën ñun ñi ñoo bay jaay gerte jox ko mu am lu mu defee dawlin mais nañ ñu faale pourquoi duñ ñu faale ñun ñun ñuy def ci réew mi kenn du ñu faale pourquoi a non nañ ñu faale walay sonn nañu nañu